loolu moom la ñu jële ca mag ña donn ko ci ñoom te duñ ko ragal nag waaw bu ko defee ñuy sant yàlla am na ñu laaj sax ci suba waaw ci bi daa jaaxle ci sama comportement waaye fekk na dafa am lu ma xam te mënuma ko expliquer nit ñi waaw ma faf ko jaare noonu rek waaw waaye sant yàlla rekk la mhm. ndax itam atu yàlla gisuloo njaboot yi yaa ngi ci sa yitte ñoom ñu ngi ak seen enthousiasme ak seen yitteeg seen farlu nga yëg ni sa jëmm gi moo leen fi bàyyi wallaay bu sa rangooñ waddul nga xam ni kon war ngaa seet sa bopp waaw waaw dafa tolloog nag sunu borom du juum noonu la tërale àddunaam na ko góor gi waxoon fa taratan tara yusran wa taratan uxra tara usran kon nag fa inna maa al usri yusra waaw moo lu yàlla indi rek ndax li mu góor gi waxoon ni yàlla man mënul xarit ndax lu mu diis la yenn yenn la ko waaw waaye l'essentiel mooy nga nekk xaritam waaw bu ko defee kon nag njaboot gi sant leen maa ngi ko wax ci suba taxawaayu maam capitaine ak ay frère am ak cousin ak ñi mu bokkal ci MG bi taxawaayu soxna Fatima ak yaayam ak ñi mu bokkal seen groupe yépp ah boo ci dee xalaat da sant yàlla lool ndax boo amul woon ñu mel noonu yow yaay summeeku pour defal ko sa bopp waaye kon dafay mel ni sonnloo pour sa kilifa donc sonn ngir sa kilifa yàlla am lu mu la fayee bu ko defee kon nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñaanal képp ku ñu bokkal yëf yi yàlla may leen ñu guddi ci fan te yàlla yokk leen ci barke yàlla yokk leen ci sutura ñu ngay sant ñëpp ku ne xam na ni lu mel nii kese kese defu ko njaboot yi mobilisé wu kenn ku ne à sa ñu bokk ci dayra ak ñu bokkul ci dayra ñi amee parti politique ak ñi amee yeneen regroupement yooyu yëpp léeg-léeg nga gis sax ñu yónnee annoncé ni dañuy ñëw waaye mujj gi nga yëg ni ñëwuñu di nga xamit li tax ñëwuñu lan la waaw dafa am ñoo xam ne fii ci Sénégal boo jógee ni ci din yi laa jëm luñ la may jàmm luñ la mën a wax pour décourager la dinañ ko def mais jaru Moustarchidine soxlawul kenn te yàlla defal na ko lépp ba noppi waaw waaw bi ci des itam ku defa ne da nga ñuy chantage ñun bu ñu la chantage yow doo ñu chantage ki may waxal loolu mooy Sonko ci boppam waaw man maa ko war a chantage ndax bu dee dund ba tal lii yàlla ak sama taxawaay tax keroog bañ ko jëlee prison mu nekk dans le coma ñu yóbbu ko principal man mi ma téléphoné professeur Watt Khalifa Babacar Watt ni ko taxawul ma Sonko mook Pape Alé parce que ci liquider leen la ñu jëm te ëpp naa bàyyi noonu mu taxaw moom professeur bu na sax du demati këram ndax surveiller leen rek ndax bañ bu fa jógee léegi ñu jar gannaawam def leneen waaw kon nag bu demee ba yàlla may ko mu tal ko mu mel ni daf ñu ignorer maa ngi koy xaar ci législative yi kenn rekk moom ma jaaxal mooy jomaay jomaay ku baax la te yëg naa nit lu baax rek la yéene réew mi mais ku xool li xew di nga am loo comprendre mais it yàlla mu ngi fi du fi jóge waaw na continuer rek am yéeneem bu rafet fa yàllay jaar ba mu réaliser li muy réaliser kooku kenn mënu ci dara waaw bu ko defee kon li la ciy reeloo moo di tappalekat yi léeg-léeg nga gis ku téléphoné ni waaw wax leen Serigne Moustapha waaw Sonko dafa am lu ma yóbbante ci moom ma bëggoon na ma recevoir ma ni ma lànk waaw ma lànk recevoir uma waaw ba démb ba démb ba démb am na ko fi woote waaw waaw Sonko moo ma yónni woon mu dee dooma mën recevoir nga boole ma ak capitaine nangam nangam ay dàllam sax kin seenu ko bu ko defee comédie yooyu lañu war a bàyyi Sénégal changé na te sunu génération bi xëy na mag ñi ñoom ni leen yàlla bindee la leen yàlla bindee mais ñun suñu génération bi nax ñu yombul waaw moo tax ku yebu looy def rek nga xam ko waaw bu ko defee kon nag dañu tudd Yewwi Askan Wi bu ñu honnêté bu ñu honnêté dinañ xam ni Yewwi Askan Wi fu mu yegg si man maa tax mu yegg si fa du du sama jëmm ndax la may def fa mu koy defee yàlla rek a ko fekk pour di leen dimbale pour ñu dem de ma defe ni kon nag ca loola it laa dëgg ba duma Macky Sall duma yu saf-sap waaw li nit ñuy soow yépp soow